xasiidatu baanat suaat xasiida euh, gu siiw la goo xam ne des na koy faral di jàng ci daaray xam-xam yi muy daaray majalis bu am solo la ci wàllu luwa ci wàllu langue arabe ku ñuy wax Kaab ibnu Zuhair ibnu Abi Salma al-Mazini moom moo ko defar waykat la woon boo xam ne ci waa Najd la bokk bokkon tam ci ñi ci gënoon a kawe wax ni sax ci riwaya yi bi l'islam ñëwé dafa waxon ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam wax jo xamni ni ju taxu rafet ba yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne raykat deretam neen na dara du lu ca fekk bi kaa bi déggee loolu ci la ñëw ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ngir amu kaaraange yalla dogal mu dugg ci l'islam dadi way xasida gi nga xam ne laami yàlla gu siiw tàmbale ci baanal soaat yonente bi salaa sallam jéggal ko summi am mbubbam jox ko loolu am na ay riwaayaat yu koy wax te saraab bi ma tiim nii dafa mel na loolu tudd bokkoon nañ tamit ñu gënoon a xam way ndax moom baayam waykat la muy Zuhair ñu xam ko ci waykat yu mag yi mbokkam tamit ku ñu wax Bujayr moom itam waykat la doomam ji ñu wax al euh, ki ñu wax Uqba waykat la ak seetam bi ñu wax awaam moom itam waykat la kon dafa mel ni euh, famille waykat la mu ngi faatu ci atum 26 ci gàddaay gi quarante 645 ci milaad yi fii la ko tàmbalee nee na baanat suaadu fa qalbil yowma matbuulu mutayyamun ithraha lam yufda makbuulu nee na baanat teqalikoo na fàcc mooy teqalikoo gu sori mooy dem na dem gu sori daal sori nañ lool fi mu ne suaad suaad suaad mën naa nekk turu euh, soppeem la bu jigéen mën naa doon loo xam ne da ko waxoon muy lu am dëgg-dëgg wala muy lu muy iddia rek kon ni ko waykat di faral di defee ci baabu xësal buñ bëggee way nit dañ ko tàmbalee ci melal jigéen wala ñu wax seen digganteeg jigéen ak yu mel noonu wala ñu melal taw wala gileem wala àll wala yu mel noonu laataa ñuy dugg ci leen tax a dugg dëgg-dëgg ci seen way woowu fa qalbi sama xol al yawma tey mat buulu lu ràgg la ma dafa mel dafa tawat ngir cofeel mu tey yemun lu ñu mokkal la maanaam koo xam daal mbëggil gi da koo not ba mujj mel ni ab jaam nga xam ne moo koy womat di ko jëme fu ko neex day mel daal ku gëlëm israha ci ginnaawam israha ci ginnaawam makbuulu ku ñu jéng la moo dañoo teg ak chaîne ci wala ab ab jéng ci tànkam lam yufda defu ko jot mooy jàpp gi ñu ko jàpp daal amuñ lu tax ñu mën koo bàyyi lu koy jotu mooy lu tax ñu mën koo bàyyi day wax ne ci taqalikoo gi mu taqalikoo soppeem boobu nga xam ne da koo bëgg lool ci la xolam mujj tawat lool mel ni luy muusaan yaram di tawat xolam di feebar ngir mbëggeel gu metti gu mu am ci ndaw soosu dafa mel ni koo xam ne daal bi soaat demee dafa gëlëm mel ni dañ koo jéng te amut ko ko mën a dindi jéng boobu kon xolam tawat na gëlëm na xamul fu mu jëm ndax bëgg cofeel gu metti gu mu am ci ndaw soosu di sowaat te ñu soree loolu nag fi mu ne wa ma sowaadu déet sowaat xadaatal bayni ci subak taqalikooga suba gañi dem ga muy taqalikoog moom israxalu waxtu wa ñuy laxas laxas mooy dem illaa agannu lu may kéwél gu neex baat xadiidu tarfi ku damm ab gis mooy koo xam ne buy xool xool bi day xaw a lewet day woyof day yëramtalu mag xoolu ku ñu tusngal euh, alkaxal ñu wax na mooy ñuul ñuul bi nekk ci kaw bët nga xam ne bokkut ak tusngalu mu ne sowaat keroog bi ñuy euh, teqalikoo dafa mel ni mën nga ko niroole kéwél goo xam ne nii baat bi dafa neex buy xool di xool xool bu lawet xool bu yërëmtalu ba di mel dañ koo tusngal dafa am ñuul ñuul boobu ci kaw mu ne soxaat keroog bi ñuy taqali kéwél googu laa ko mën a nirooleel xëy faa u aji woos la woos mooy koo xam ni biir bi rëyut muq bi la taan su dee jublu si ana bu jàkkaarloo yow dangay gis ne biir bu rëyut te loolu melokaan wu ñu tàgg wu ñu tàggale ci jigéen aji zaa u ku rëy ginnaaw la mudd bi la taan ci su la wanee ginnaaw maanaam bu la wanee ginnaaw du dem ginnaaw gi day rey mooy day wang li ñu wax ci wang ci jigéen loolu tamit melokaan wu ñu tàggale ci jigéen jigéen lu ñu tàggale biir bi bañ a rëy te ginnaaw gi rëy laayu sutaka deefu jàmbat xisarun ak gàtt minha ci moom wala tuulu du tàggin ak gudd moom dafa diggu doomu du gàttul guddul euh, loolu maanaam yaakaar naa leer na mooy rabago wax rañ ne bu dee ñëw nga jàkkaarlo moom da ngay gis ne biir bi day day day yam bu la wenee ginnaaw itam da ngay gis ne ginnaaw gi day wam kon dafa digg doomu diggante gàtt ak gudd guddul bu ëpp gàttul bu ëpp tajlu dana wuññi awaarida vi valmin reewu borom ndoxum bëñ awaarid jàmmu aarid la wala aarida moom lu ñuy tudde ak dawaxik loolu boroom xam wóot nañ ci maanaam waaye liñ ci mën a jàpp rek mooy bëñ yi nga xam ne nit ki bu dee rey mooy feeñ moom la ñuy tudde ak dawaxik zalmu mooy melxati bëñ yi ndoxum bëñ mooy melxati bëñ yi idab tasamat ndem muuñ na moom soaat ka annahu daanaka moom munhalun lu ñu geegal la geeg ci wolof mooy asharaabul awwal naan gu njëkk bir raaxee ci sàngara maa loolu lu ñu sunguli la sunguli mooy naanu ñaareel waaw day melal suwaat du wax ne bu fekkee ne bu fekkee ne mi ngi muuñ day génne da gis ay bëñ yoo xam ne bëñ day melxati nee na siiñ bi tamit dafa nekk siiñ mu neex dafa mel ni ku naan sàngara ba noppi naanaat xet gu neex gi nekk ci siiñ mi moom lay niróole xeetu uh, sàngara sujjat jaxaseef na léegi day melal sàngara si mu ne sujjat jaxaseef na sàngara soosu bi di shabamin ci boroomu sedd lu sedd lool min maa i maxniyatin ci ndoxum lunk lunk xur maanaam aw xur fu xam ndox ma dafay taa fu am xóot fu ci xur wi maanaam xur wi ni bu amee fu ci biir ndox dafa taa saafin lu sell mooy amul ay nëx-nëx wala ay salte wala dara bi abu nekk ci aw xur ba tey abu tax ci arab mooy suuf su tàlli soo xam ne ni wàll yi dafa yaatu ndox mi di fa jaar di yol di fa jaar bàyyi fa beeñ bi ak xeeru ndaw yi foofu lañuy tuddee al abtax màkka sax dañ koy tudde al batxaaw dag day amaat ci biir nag feneen foo xam day am xóot-xóot foofu la ñuy tuddee maxniya adxa mu junne ci waxtu yoor yoor waxwate moom mashmoolu mooy lu ñu upp ngelawul chimal mooy ngelaw li nga xam ne mooy bàyyi ci wetuk càmm wetuk càmmoñ waaw day melal sàngara si di wax ne sàngara soosu kat dañ koo jaxaseeg ndox mu sedd moo xam ne ñu ngi ko jëlee ci xóot xóotu xur woowu nga xam ni xur wu sell la te nekk ci yoon woo xam ne nii wala xur woo xam ne nii dafa yaatu nga xam ne ndox mi dafay yol di jaar dafay sottiku di jaar di dem su forom mel ne dafay bàyyi suuf suufus beeñ bàyyi fa tamit xeeru ndaw yi ñu bàyyi na ba waxtu yor yor jot ñu jël ndox moomu fekk ngelawul chimal jaar na fa bu ëpp ko bu ko defee day sedd guy waaw ndox moomu nee na mom lañu jël boole ko sangara soso nga xam ne moom lay nuroo la ni nag su siiñee moom ndaw si wala mu muuñee xet googu mooy génn ci gémmiñ gi tan fii dana dàq ar ngelaw yi alqada alqada moom wax laas laas mooy lu nekk ci bët dañ koy tuddee alqada lu nekk sax lu ñuy naan te bu ko ci dañ ko tuddee alqada waaye mu jublu ci rek lépp loo xam ne day dugg ci ndox mi ci lu ko mën naxal waaw lépp lu dugg ci ndox mi te mën koo naxal loolu la ñuy tudde alxada anhu ci moom maanaam ndox moomu la ne ngelaw li bu ñëwee day dindi lépp luy salte bu nekkoon ci kaw bu uppéere ngelaw li day yóbbaale salte yooyu wa afratahu fecc li na ko mooy duy na ko ba mu fees min saw bi saariyatin ci tawub niir yu rañaan niir yu ñëw guddi as saw mooy almatar biidun ay montagne biid jamu abyad yaaliilu yu wextal yaalil jamu yaaluul waaw nee na bëgg wax daay wax rek ne ngelaw li bu ñëwee day dindi bépp salte wala luy nëxal ndox mi lu nekkoon ci xur woowu da koy dindi ba mu set wicc bu ko dindee ba mu set nag nee na ab taw day daal di ñëw waaw montagne yu weex yooyu nga xam ne moo tiim xur wi nee na ab taw ñëw taw boo xam ne day ñëw ci guddi gi wala ci suba teel bi bu ko defee taw bu bari lool bu ko defee da koy duy ba mu fees nga xam ne kon day boole set boole sedd boole tamit bari ak akrim kawtee fi tedd nga bihaa nekk na ci suwaat xullatan ci xaritoo xulla mooy cofeel gu sell set gu sell law annaha donte moom sadaxat dëggu na wala dëggal na mawuudaha la muy digge aw law an na nusa wala doonte laabiire gi maqbulu lu ñu nangu la mu ne xaritoog suwaat daal xam naa ne dara du ko dàq dara du ko gën a neex bu fekkoon ne moom lu mu dige dana ko def bu fekkoon ne lim dige lu dëggul ci moom dina xaritoog moom dara du ko dàq walla sax boo ko laabiiree mu nangu li nga koy laabiire nee na kon kenn du ko gën ay jikko kenn du gën a mat laakin ha waaye moom xullatun ak xarito la goo xam ne xad siita jaxaseef na min damiha ci deretam fajun musiba wa walun ak fen wa ixlaafun ak wor wa tabdiilun ak soppi mu ne waa yàlla daf ko na too rek mel na di dafa nekk jikkoom juy daw ci deretam mooy fen ak wax lu amut ak sopp ko bu la waxee tey lii bu ëllëgee mu denc ba set ci mel na mosu ko wax famaata ma du sax ala ci melokaan takunu dala nekk bihaa ci moom kama talawanu ni ki muy melokaanoo ni ki mu yore ay melokaan yu wuute alxóolu njuumay alxóol ci cosaan mooy lépp loo xam ne day alag nit mu jublu foofu nag njuuma wala seetaan yu jigéen ñi fii athwaabiha ci ay yéreem ibnu soaad soppeem boobu daal dafa mën a soppeeku lool bu tayee mu mel nii bu ëllëgee mel na ay couleur yu wuute daal la yor ni njuuma di mel nga xam ne day day day yor ay melokaan yu wuute mais moom soaad noonu la mel saxul ci wenn melokaan wala tamassaku du jàpp cosaan cosaane wala tatamassaku du jàpp bil waadi ci digg bi alladi bi nga xam ne zaamat wax na ko illa kama yumsiku lu may ni muy jàppee alxarabiilu tamee jamu xirbaal tamit yi ñu layee dugub ak yu mel noonu almaa a ndox mi waaw mu ne bépp dig bu la waxit nee du ko faale du ko jàpp lu ngeen waxante di neen bu ngeen noppee rek lay mel ni dafa jaar ci nopp bi génn ci nopp ba ci des dafa mel ni rek ab tame ak ndox loo ca sotti rek day jàll du téye dara pour mëna ne sa la mel lum la dig tamit nee dig yo jëru jàpp fala yaxurrannaka bum la wor bum la nax ma li nga xamne man mën na mbébét loo na wa maa li nga xamne ne waada dige innal amaniya mbebedi wal ahlam ak genti moy mooy li kii law di gis tadlilun ak rerel manam ak sankular ak nee du mujj fenn wax ni lim lay wax ci ne dana la jokk loolu moom la naxa mukk ba nga jàpp lam lay dig tamit na dootu la bàyyeti jàpp na dootu la bàyyeti loolu tamit jëru jàpp ndax bu ci pare pare na ci mu ne nag léeg-léeg nag nit ki liñ koy mbébétloo ak li muy gént mën na koo yóbbu sax ci ak réer yóbbu ko ci tax ci foo xam ne nii du ci am lu ko neex léeg nit mën naa bëgg dara walla muy mbébéta am dara wala muy gént te fekk la mu koy juróo rek mooy loo xam ne ni bu demee ba yeewu nekkati day ci lay door a xam ne nekkati nekkutoon ci dara kaanat nekk na mawaayidu urquubin digge urquub masalan di misaal laxaa ñel suwaat wa ma mawaayiduha déet ay digam illal abaatilu lu may ay neen nen suwaat lu mu la dig mën nga koo jàppee comme ne urquub digge urquub yi ñu daan wax rek xam ne lu mu la dig rek ay caaxaan rek la ay neen lay doon warqoob dañ ci sadd misaal ci koo xam ne nii daf dafa mën a wor ku mën a wor ku nekk rek dañ ci sadd misaal ci ne moom day digee comme ni warqoob doon digee wax na warqoob ibnu maabat ibnu zuhair am ñu ne warqoob ibnu saxral dañu wax ne dafa amoon benn mbokkam bu mu digoon ci meññetum tàndarmaam daan ne ko la da ngay bàyyi bu demee ba tóor tóor nga ñëw bu tàndarma gi tóor tóoree waa ji ñëw mu ne ko léegi dangay ngay bàyyi ba mu xaay bi mu xaayee waa ji ñëw mu ne ko da ngay bàyyi ba mu wicc lu ñu wax wicc su bi mu tàndal ci tolloo ci wicc waa ji ñëwaat mu ne ko bàyyi ko bàyyi ko ba mu nekk ruutam ba mu nekk mënax ba mu tàmbalee tooy nga xam ne daal li koy ñor du bari demee ba mu nekk mbënax ruutab mu ne ko bàyyil ba mu nekk tàndaram ba nga xam léegi danañ ñor léegi ko rek moo ca des bam mu demee ba doon ma war ko bàyyi bu guddi mu ñëw dagg lépp yóbbu joxu ko ci dara waa ji bu ñëwee fekk ko dara ñu ci sadd misaal ci ku mën a wuute ab doyal mu ne soaar nag moom moo ko orxu ba moom kepp mooy lu mu la digg du ko def lu mu la wax itam du ko def mu ne arju danaa yaakaar wa amulu te danaa yaakaar benn ñoo bokk an tadnu mu jege cosaanam mooy an tadnuwa waaye waywee tax rek mu def ko an tadnu mawaddatuha ak cofeelam wa maa i xaalu te duma jortu la day naa fañ ñun ñun ki ci yow tan wiilu ak may wala ak am foo xam ne daal man sax eh, ànd ak ma xam ne soit ku mën a wuute ak doxal la lu mu digee du ko def nee na taxul ma sama yaakaar ci cofeelam dagg taxul tamit mën naa ko ci ne dana ma dana bis dina ñëw ñu mën a ànd waaye nee teewul li may xam-xam ne moom ku bari wor la ku mën a wax lu dul noonu la it nee na taxut taxul nee na ma am may am may am yaakaar ci moom kon day man day day man day boole daal yaakaar ak naaw léeg-léeg mu dem ba caag mu jàpp ne moom daal kii ba ma doon naan keneen mbiram jeex na léeg mu dem ba caag naa ci am yaakaar xëy na so weesoogut amsat mujj na suaat suaat bi ardin ci suuf soo xam ne laa yuballighuha du fa àggale illa al taaxu ndare naaga yu gore al itaax jamu atiix mooy naag gileem yu yoo xam daal seen sant fan baax la an najibaatu yu ay tànneef mooy gileem yu baax al marasilu yu di way jàpp jamu mirsaal mooy yu gaaw rek dina suaat léegi mi ngi ci suuf soo xam ne su sori nga xam ne ku fa bëgg àgg moom faaw nga war ay gileem yu baax gileem yu dëgër gileem yu gaaw ndax foofu dafa sori lool.